asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ku def lu rëy am lu rëy ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yi ñoom ñooñu daal dina ñuy indil fii ci biir Sénégal Coupe d'Afrique des Nations loolu moom moo tax ba démb ba leen njiitu réew mi di dalal ca palais présidentiel ah defal na leen lu rëy tey jiwatulikaay bii di Sud Quotidien moom la daal di xëyee ndaxte mi ngi ñuy xamal ne Macky yàq na yàqeet ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yi ku ci nekk daal dina lay tabal raaya def la nga nekk officier de l'ordre national du ñu ne déet ni waay mu jox leen ku ci nekk juróom fukki million ñu ne déet ni waaye njiitu réew mi jox leen benn terrain fii nga xam ne moom mooy ci biir Dakar terrain boo xam ne ñaar téeméeri mètre carré lay am Macky Sall yemul foofu de ndaxte tamit fële nga xam ne moom mooy ca Diamniadio foofu it jox na leen terrain goo xam ne juróomi téeméeri mètre carré lay doon Abdoulaye Thiam boo colikay bii di Sud Quotidien ne kon ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi la mu digoon ñi nga xam ne de ñoom ñooy gaynde yi def na ko ba mu mot sëkk ndaxte ba mu leen di dalal ca palais laata nag ñuy dem fële nga xam ne moom mooy ca Cameroun daf leen wax waxoon ne su fekkente ne daal ñoom fexe nañu ba coupe bi daal di ñëw fi nga xam ne moom mooy ci biir réew mi bu boobaa moom dina am fu mu jaar ak ñoom loolu la njiitu réew mi daal di def ndaxte Abdoulaye Thiam ma ngay ñëwaat ci terrain wu 200 mètres carrés gi nga xam ne jox nañu ko ñii di gaynde yi wante it ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk euh, ci biir délégation officielle bi nga xam ne daal am na ci lu tolloog euh, juróom fukk ak ñaar ñoo xam ne ñoom ñoo ci nekk mu jébbal leen tamit 500 mètres carrés ci wàllu terrain goo xam ne euh, moom moom mooy ca Diamniadio ñu war faa mën a tabax sax lu ñuy tuddee cité de la tanière njiitu réew mi yemul foofu ndaxte it jox na leen ku ci nekk euh, koppar gu toll ci juróom fukki euh, million Abdoulaye Thiam nekkoon fukki milliards ci suñu koppar lu njiitu réew mi daal di mobiliser ngir ndàmpaay goo xam ne teg nañu ko ci ndodd ñi nga xam ne de ñoom ñooy gaynde yi ak tamit ñañu àndaloon ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations koppar gu takku ak ay terrain autolikaay bi di direct news ma ci ciy dikkaat di xamle kon ne suñu gaynde yi ñoom ñoo def démb ñu daal di am lu rëy stade yéene kaay ne Macky Sall kon xëpp na xaalis ñi nga xam ne de ñoom ñooy suñu gaynde yi wante it jox na leen ku ci nekk lu tolloo ko ñaari terrain loolu it moom la ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci délégation bi daal di jot Macky Sall yàq na yaxeet ñii di gaynde yi loolu it la culikaay bii di Le Soleil daal di fësal ci xëtam bu njëkk njiitu réew mi démb daal di wane contentement dem na bay wax ne Coupe d'Afrique dañ ko doon gént rek wante gént mu mujjee am la ndaxte ñii nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yi indi nañu ko fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi Macky démb xam ne ñoom ñooy gaynde yi looloo culikaay bii di critique daal di fësal ci xëtam bu njëkk ak koppar gu takku yi nga xam ne moom la njiitu réew mi jagleel ñii nga xam ne de ñoom ñooy suñu euh, gaynde yi les échos di ñëwaat tamit ba léegi ci wàllu koppar googu wante mu ngi ñuy xamal ne gaynde yi tamit ba ñuy euh, ñibbi ku ci nekk jox nañu la titre de propriété bi nga xam ne moom moo jublu ci wàllu ñaari terrain yi ñu leen jébbal démb sax coupe bi fa li nga xam ne moom mooy ca palais palais de la république la fanaan rax ci dolli nag dina am ab tournée nationale boo xam ne dinañu ko amal ab coupe bi ngir képp ku nekk fii ci biir Sénégal war kaa mën a teg ay gët ci terrain yooyu nga xam ne nag moom la njiitu réew mi daal di may ñi nga ne ñoom ñooy gaynde yi ak tamit ñu bokkoon ci biir délégation bi ci biir culikaay bi di 24 heures Guy Marius Sagna moom moo ci artu njiitu réew mi ndaxte ma ngi koy xamal ne buggul daal ëllëg ñuy wax ne dafa am njuuj njaaj ci wàllu suuf si nga xam ne moom la njiitu réew mi jébal ñi nga xam ne ñoom ñooy gaynde yi ca gox ba nga xam ne fa la tànn tànnoon ndaxte bëggul Macky daal di ciy profito moom ak ñi nga xam ne ñoom la farandool ngir daal di fay utaale tamit yeneen terrain ba pare bëgg a wékku uh, ci ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu gaynde yi ñu daal di descendi ak njiitu réew mi ndaxte tey jiw culikaay bi di l'observateur mi ngi ñuy xamal ne ñi ko jege dañoo waxoon ne tey ci wàllu ndajeb conseil des ministres la fas yéene xamle kan mooy nekk uh, premier ministre bu yees uh, culikaay bi di l'observateur di laajte ndax ndam lu rëy li nga xam ne moom la suñu gaynde yi am du tax ba Macky Sall daal di pusaat maanaam raw li gët comme fi mu nekk ni ñu ngi xaar gouvernement bu yees julikaay bii di tribune mi ngi ñuy xamal ne loolu moom moo waral ministre yeeg directeur généraux yi ñoom fu mu nekk ni toogatuñu taxawatuñu ku ci nekk ma ngay seeti sa sëriñ seeti xarxa fuufa yi ngir fexe ba mu def ci ñaan wala boog fexe ba nga toogaat ca poste ga ñu la uh, tegoon ñu bañ la faa dàq daal loolu moom moo tax ba fu mu nekk nii ñii nga xam ne ñoom ñooy ñiy def xarxa fuufa yi ñoom de waxuñu dara ndaxte koppar gu takku lañ leen di faral di xëpp jeexale kon ak wàllu soxna si uh, di Rama Camara dëkk ci diwaanu Mbuur a nekk ab commerçante ñu faatoon bakkanam ba pare sànni ko uh, ci ab tool ga nekk ca uh, bi di libération mi ngi ñi xamal ne am na lu bees ci l'enquête bi ndax jàppoon nañu ki nga xam ne moom mooy faram ka mu doon génnal tamit ak sëriñ si nga xam ne nee na yeeyaay da ko doon fajal faru rappam sa mujjantal ga sëriñ si dong la ñu bàyyi ca kaso ñu sa des dañu leen a bàyyi ginnaaw bu ñu defee ab l'enquête gis na ñoom takkuñu nag ci faatu bakken boobu marabu boobu julikaay bii di libération moom mi ngi ñi ne la mu wax yëpp dafa waroo ak li nga xam ne ne moom la ñii di yi fekk ca bërëb ba nga xam ne fa la ñu sànni woon néewu kii di euh, Rama Camara loolu moom moo tax ba fu mu nekk nii caabi féete na ko gannaaw lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir jullikay yi ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État Macky leur avait euh, promis une récompense à la hauteur de leur performance et c'est chose faite puisqu'hier Aliou Cissé et ses hommes joueurs comme membres de l'encadrement Qui plus est, le chef de l'État Macky a aussi décidé d'offrir à chaque joueur millions de francs CFA et des terrains de 200 mètres carrés et de 500 mètres carrés respectivement à Dakar et à Diamniadio. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, Macky gâte les lions avec cette prime exceptionnelle de 50 millions de francs CFA et des terrains à chacun des joueurs mais aussi à l'encadrement. Les lions à l'honneur au palais, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une l'oreille, le travail très bien fait sera très bien récompensé. Et oui, ils ont été récompensés. Et selon notre confrère Abdoulaye Thiam, le président Macky Sall a donc tenu sa promesse. Il avait demandé à la bande, à Khalidou Koulibaly, d'être de vrais lions pour remporter le titre continental au soir du 6 février 2022. En retour, ils recevront les honneurs de la République et si les lions ont accompli leur mission, le président Sall n'a pas non plus lésiné sur les moyens. Un terrain de 200 mètres carrés à chacun des de la délégation officiel composé de 52 personnes à Dakar et 500 mètres carrés encore à chacun euh, pour installer dans la nouvelle ville de Diamniadio une cité de la tanière. Last but not least, Macky Sall a offert à chaque membre de la délégation 50 millions de francs CFA et c'est un peu près de 10 milliards de francs CFA que le président de la République a mobilisé pour récompenser les champions d'Afrique. Ce qui fait dire à nos confrères du quotidien du sport Stade qu'hier, le chef de l'État membres de la délégation officielle. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous parlent aussi de cette pluie de récompenses pour les héros de Cameroun 2021, d'un premier titre continental. Les Lions du Sénégal ont été reçus hier par le président de la République Macky Ils ont été élevés avec l'ensemble des membres de la délégation officielle au grade de l'Ordre national du Lion, en plus d'une prime spéciale de millions de francs CFA et de de diront nos confrères du quotidien Le Soleil. Hier, le chef de l'État a signé un gros chèque au Lyon. C'est le titre qui barre la une du journal Critique et dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères nous parlent également du chef de l'État Macky qui honore la tanière avec millions de francs CFA et des terrains pour chaque lion. D'ailleurs, hier, nous informent nos confrères du journal Les Échos, la coupe a dormi au palais et une tournée nationale le chef de l'État Macky Sall, mais aussi au peuple euh, sénégalais. Et c'est Kalidou Koulibaly qui, à l'occasion de la cérémonie de réception des Lions champions d'Afrique, a prononcé un discours unificateur. Le défenseur central des Lions est revenu sur les encouragements et les mots galvanisateurs euh, du chef de l'État Macky lorsqu'il leur remettait le drapeau national. Il a aussi remercié les ministres Maktar et Abdoulaye Sow qui ont toujours été à leur côté la confiance la considération euh, Kalidou Koulibaly a tenu aussi à magnifier le travail de son entraîneur qui a fait preuve de courage et est devenu un coach champion. Toujours dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent aussi que Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, a lui aussi tressé des lauriers à Aliou Cissé qu'il considère comme le meilleur coach du continent depuis trois ans. Des récompenses amplement méritées à en croire nos a tenu à l'État à Macky Sall. Il lui demande de se débrouiller pour ne pas donner à nos chers lions du football des terrains à des endroits que lui, le chef de l'État, veut partager en essayant d'utiliser les lions du foot comme de futurs boucliers de la fureur populaire contre la spoliation foncière. Parlons à présent du tout nouveau gouvernement attendu dans les prochaines heures, car à en croire nos confrères du journal L'Observateur, c'est aujourd'hui que le chef de 2022. Passera-t-il à l'acte ou pas Nos confrères du journal L'Observateur nous donnent rendez-vous dans quelques heures. Cependant, nos confrères du journal Tribune, eux, croient, dur comme fer, que ce changement au niveau du gouvernement va intervenir dans la deuxième décade du mois de février. Et c'est la ruée des ministres et directeurs généraux vers les marabouts et les faiseurs de miracles se frottent les mains. Et nous terminons par cette affaire de la jeune commerçante tuée à Mour et jetée dans un champ La défense était parti chez son marabout le soir de sa disparition pour prendre un bain mystique afin de lutter contre son phare et son ex-copain qui ne supportait pas leur rupture. Tout ce beau monde avait été placé en garde à vue euh, pour nécessité de l'enquête, mais au final, l'amant de euh, Rama Kamara qu'il avait déposé chez son guérisseur ainsi que son ancien petit ami ont été libérés sans charge. Quant au marabout, il a été finalement déféré hier euh, pour meurtre après requalification qu'il continue à nier les faits, plusieurs éléments techniques recueillis par les enquêteurs confirment que sa version, qui comportait déjà une tonne de contradictions, repose sur le mensonge. Et selon les résultats de l'autopsie, Rama Kamara est décédé suite à un traumatisme crânien encéphalique grave. Par ailleurs, plusieurs plaies causées par un objet tranchant ont été détectées sur le corps de la défunte, mais aussi au niveau de sa tête. C'est tout à vos